libération yéene kaay ne booy jinne day génnee nañ ko ca kaso ba yóbbu ko ca procureur démb moo ay complice am laa la wax yéene kaay gi ne installation ak exploitation yoo xam ne jaarul yoon ay salle de jeu waaw ak ay machines yoo xam ne ca xaalis rek lay yëngu de ci ay gox yu bare bari nag waa dig day war nañu ndomba business bi nga xam ne moom la lin xiwee doon def ca ngafaru gare lañ ko jàppee waa ji chinois la ah ndekete semaine bu ne daan na am lu tolloo fukk ak juróom ci ay millions allahu akbar machine am yooyee maa ngi ko installé woon ca Tivaouane Peulh gare Thiès Touba Jalaaw Kaolack Kër Ayib Kaarang Sali ak yeneen i gox sax lu ci tolloo fukk ak ñaar ci ay doomu adama kon de ay suspect waa dig teg nañ leen loxo te nag xam nga njortu gi la laa wàllum blanchiment seetal xaalis rek boo xam ne setul libération ne waa ji bawoo ca Chine ay pexem dig mujje na ko ndërmel yéene cabinet bu mag a mag ci réewum Sénégal jot na fee taxawal ay salle de ay machines yi ñuy jëfandikoo ci powum xaalis yéene cabinet waa joojule ca ngapparu lañ ko tegee loxo la mu doon góobee ci koppar semaine bu jot ci yooyu le salle de na ci fukki millions ak juróom yéene cabinet demoon na ba taxawal ay salle de jeu fu mel ni Tivaouane Peulh tubaab Toubab Dialaw Kaolack Kër ay Karang sali ak feneen ak feneen bu weesoo chinois googule am na ñeneen ñu ca doon feggool toll nañ ci fukki libération à son tour de nous informer sur cette installation et exploitation illégale de salles de jeu avec des machines à sous dans plusieurs localités la DIC cerne le business en or de Lin cueilli le ressortissant chinois se faisait au minimum 15 millions de francs CFA par semaine